suma mbindeef doon xam cerno Birahim xama maam cerno ndaamal daaru Seex Bamba noona cernoy loxol ndey joor may càmmoñ ba loxo bu nekk la muy jëriñ borom ba ndey joor koy leel bu lekkul faatu càmmoñ koy laabal bulaa bulaatoo ma bamba nee xam ngeen ma man bamba te it xam naa leen te xamu leen ma waaye man xam naa leen maam Cerno ndaamal daaru yéenay samay saayir te maay seen baatin yéenay yaram wi maa di ruugi ngir kon yéena di man ku leen jamoon ma nàcc ku ma jamin ma nàcc déglul baañ keroog la naan sëriñ ma samba ceerno mutu la diir bëgg di wërub xarno xam na ci man loo xam ne kenn xamu ko am na ci man loo xam ne kenn xamul ko maam ceerno ndaamal daaru maam bamba ne yéem naa ko man ngir xam ci man teewoo ko maam bamba nee na yéem naa ko ngir lim xam ci mënti waxu ko ak lim xamu ci ay xaraf te jàngu ko maam Bamba nee na maam ndaamal daaru yéem naa ko ngir xam-xam ba bëri bëri xam na ne maay buru te maa sori yéem naa ko ngir lu mës am man la ko jox maa ko gënal boppam te kum jox du la jox yéem naa ko ngir lu ma jox lu mu rëy rëy ma jox mbindeef yi bu dellu seene ci maam Cerno ndaamal daaru yem naa ko ngir lu ma ko jox lu mu sew sew maam Bamba nee na Cerno daaru yem naa ko ngir lu ma ko jox lu mu sew sew mu denc waaye musu la laaj musu la bew maam Cerno ndaamal daaru maam Bamba ne yem naa ko ngir waxtul jamaalil wa jalaal xamewu leen fu ma gis daldi kamaal maam Bamba ne yem naa ko ngir fu ma nekk ak fu ma la Cerno daa yamale aajewul defal yem naa ko ngir su ma bégeeg su suma béwil su ma du tee mu tëgg Mustafa sax ci ndigal Maam Bamba nee na Maam Bamba nee na yem naa ko ngir su ma gisul man Bamba du tee jublu ngir yónneen ba yële bayit la Bamba dénkoon cerno fa daaru Rahmaan ngir yërëm noo musiliwaat tey ji la mbooti cerno yoo xam ne jomm na gone yi bii bamba ko waxtaan ak sëriñ ma samba ma way ko man mi weroka nu bamba ma way ko man mi weroka nu bamba maam cerno faati